لا لا لا إله إلا الله أنا لا إله إلا لا إله إلا الله أنا لا إله إلا لا إله إلا الله أنا لا إله إلا لا إله إلا الله أنا لا إله إلا لا إلا لا لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله على الإطلاق والعبد لله قديم باقي وفي الجمال والجلال الحمد وللكمال مزهر وعبد في فرق والجمع نقول الحمد ومنتهى الجمع نقول العبد صلى وسلم عليه الله في البدء والقدم كما نراه يا أهمة سيق اغفر في هذا المعبر ولتأتي فيه بنصرة تأتي لنا بسفر ربي اصلح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi lay nuyu suñu Mbàkke euh, info di nuyu mboolem téléspectateurs yi ak euh, auditeurs yi di nuyu waa Sénégal ak biti Sénégal yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw yëpp en occasion di leen di balu xàq ci weeru mag Ramadan bi ñu nekk Ramadan bu baax euh, ñu ngi jégalu ñëpp baal nañ ñëpp. ñu ñaan yàlla ñu war ko at yu bëree bëri ànd ak wér ak yokkute ak xéewal ak wér-gi-yaram ak wérle bi jaay bi seen mbàkke waaw euh, sëñ Baye laa ñu di tàmme di déggee ñu ne yaay borom alxuraan tur woowu lu ko indi waaw yoon euh, nit moom toujours lépp loo xamante ni wooyee nañ ko ko rek du mom mom moko créé ci bopam wala nekut mom moko ko bopam manam maanaam da ngay nek di doxé ben anam wala ben attitude bañu gis né li dafa méngoo ak alquran ñu tuddee la nitu alquran parce que bu ñu wa ahlul quran day fekk yaay nek ci dara ji di jang alquran wala nga maîtrise alquran hmm? wala ngay jàngale alquran hmm? loolu moom mooy tax ñu ne ahlul quran ñun nag turu alhamdulilah tuddewuñ ko suñu bopp waaye nit ñi ñooñu ko tuddee à cause de liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy def euh, naam euh, xam-xam bi yaatu na lool am na ci lasraar loo xamante ni mi ngi aju ci alquran ànd ak sax lepp ci alquran la bayeko lepp ci alquran la bàyyeekoo euh, parce que lepp lo xamanteni ni yaa koy utiliser ci walu nasra rek yaa ngi utiliser ruufi abjade yi wala ngay utiliser manam li ñuy wax xisaab mooy euh, euh, calcul dégg donc loolu yëpp mi ngi génne ci alquran donc yaatu na lool amna xam-xam bo xamanteni mi ngi aju ci. euh ay ay ay ay yoo xamante ni yu mag ñu tënk la bàyyi ko fi ak yoo xamante ni ci tur yi la aju ak loo xamante ni ci ay xaatim la aju yooyu noonu yëpp boo ko dajalee rek dafay daal di dellu ci alquran te lépp loo xamante nii ñu ngi koy jëfandikoo moom aslu bi maanaam euh, usdu bi moom mooy alquran moo tax ñu tuddee ñu euh, alquran dem na ba nga xamante ni suñu euh, ñi nga xamante ni ñu ngi jëflante ak ñoom li ci ëpp li leen di jox alquran lay doon. donc euh, ak euh, ci ci doxalin ci waxilin ci ci waxin lépp rek suñu lépp rek alquran la maanaam alquran ji dañ see juddu màgg ci euh, loolu noonu tur woowu noonu fekk suñu si lépp loo xamante ni nekkoo ci xamoo ko rek loolu duñ la ko ooyee bu mukk te man tasaaba xaw ma foofu minhum jërëjëf ci leeral yi gis nañ ne jamono ji ndaw ñi ñu ngi jàng waaye dañu am jafe liggéey ndax ba ci ndax loolu am nga ci ak sant wala du ko gaaw ci waaw dëgg la eh, jafe-jafe moom dafa bëri lool ci suñu zaman bii nii bëri na lool ñi eh, nga xamante ni dañoo jàng ba yëy seen i këyit waaye mënuñu am liggéey xëy na dëkk bu dëgër moo ko waral wala mbir yi moo doxul wala ndax seen wërsëg moo tëju wala ndax façon gàllankoor boo xamante nii rek mën na leen a gàllankoor bu mu mën a nekk rek euh, loola causé ko à cause de euh, euh, ci alquran wala ak cause de li nga xamante ni moom la yàlla dénk may ñu ko muy xam-xam baatin nga xam ne mooy xam-xamu lasaraar yàlla may ñu ci ba nga xamante ni kooku bu ñu dikkalee bu soob yàlla am na fu ñuy jaar ak moom bu ñu ko tegee ci tarixa yi ci yoon yi bu ci nangoo jaar incha allahu jafe-jafem boobu noonu dina dañ moo xam dafa amul liggéey wala dafay liggéey lijjanti dara mu të wala mu bëgg jabar wala mu bëgg euh, euh, soxna yooyu wala mu bëgg jëkkër yooyu noonu yëpp ay gàllankoor rek moom mooy kale moom moom mooy nekk ci digganteem ak loolu noonu bu dul gàllankoor bi rek da ngay daal di euh, kii dangay ngay daal di jot loolu moom nga nekk kon tilim tilimu doomu aadama mën na koo xañ lu war ñëw ci moom man nañ ko liggéey aussi mën nañ ko rab itam mën na ko mën na ko gàllankoor ba nga xamante ni yooyu noonu yëpp mën na ko mën na causer problème bi. ndax Baye Ablaye am na garabu tukki. si am nañ garabu tukki lépp la xamante ni mi ngi aju ci wàllu tukki moo xam ay kayit lay borom di lijjanti moo xam kayit yi fii la walla nga bëgg a lijjanti ay kayit pour dem bitim réew wala sax nga dem ba bitim réew bëgg ay kayit. yooyu noonu yëpp alhamdulilah yàlla euh, baaxee nañu yusi. sédd nañu si euh, ànd ak it wa ma utitum min ilmin illa qalil euh, yàlla dafa wax ci alquran ne joxuñu leen ci xam-xam lu tuuti waaye lu tuuti loolu ku ci nekk rek képp koo jàpp rek lu tuuti loolu mu am noonu mën naa tukki àdduna mën naa defar àdduna waxuma la Dom doomu aadama bu amee problème jafe-jafe pour tukki wala lijjanti ay kayit yoo noonu alhamdulilah yi euh, yàlla dénk nañu ko incha allah. jamono yi gis nañ coow yi ñu bëree ci presse bi ngay dégg nañu ne diw da daa egg ci doom wala du doom bëri ci leen Thiès rek gis nga xale bi ñu egg ci kawam ndax ay tegtal am na ngir sàmm xale bi ba loolu bañ a mën a am. alhamdulilah yooyu am na am na ay tegtal yoo xamante ni boo ko defee man nga aar sa doom ba nga xamante ni feeg nekkut aw xayri moo jib ci moom moo am jëkkër. Euh, loolu mën na koo bañ a gaar moo xam mu bàyyi ko ci waajuram yooyu man dama koy dégg rek waaye jàpp ma ne lu war lu ma a nekk la nag naam ci axiru zaman lañ nekk loo dégg rek moom neel euh, neel onhon rek waaye daal xam naa ne yéeme na lool wala boo kooka bàyyi ji feebar na waaw pour mën a dem ba am xelum àgg si sa doom boo jur kooku moom beneen affaire la waaye daal en tout cas euh, préparation yi am na maanaam euh, li nga xamante ni mën nga koo def euh, pour mu musal la ci loolu moo xam ci côté góor gi la moo xam ci côté euh, xale jigéen yi la li nga xamante ni dañoo am seen doom bëgg ñu ñu sàmm leen ba nga xamante ni duñ am musiba yooyu noonu du leen gaar moo xam mu jógee seen i waajur wala mu jógee ci feneen yooyu noonu mën nañ si mucc àla kulli haalin bu ñu ko defalee seen xale yu jigéen même nga am sa soxna bëgg ko Euh, garder ba nga xamante ni keneen du ca am du ca am yoon loolu noonu itam am na ala kulli xale ni ñu ko mënee defee jigéen ñi noonu lañ ko mënee defee góor kon nit ñi nañuy nañuy fagaru parce que toujours arab dafay wax ne al wiqaayatu xayru min al ilaaj fagaru toujours moo gën fayu donc euh, gis nga musiba bii di da di ñëw nga xam ne sa kaw la jëm ci taxee nga ut lu ko baare moo gën bu accès si kaw mën a la indil musiba wala mu gën a mu mu gën a tar ci yow su boobaa fekk fa nga waroon a jógee yéex na ak ci anam yëpp nag ci côté yëpp donc euh, yooyu noonu am nañ si ay ay tegtal yoo xamante ni euh, ku ñu ci dikkal rek ci fànn boobu incha allah euh, danañu si jàppale incha allah. waaw man it gis naa ne tamit ginnaaw Baye Blay borom alquran xam na ne yeneen tur wuñ lee woo muy borom jaaro bi ndax mën nga ñu dikkal ci histoire jaaro boobu. waaw ba tey histoire jaaro yi ba tey mooy comme ni ma la waxee ci alquran ji rek. Euh, nit ki moom lépp loo xamante ni nekk nekk na ci xam ko nit ñi ràññee ko ko su yàggee rek ñu ne ko euh, loola la waaw kuy jàng alxuraan toujours da ngay dégg rek ñu ne wax oh, kii nitu alxuraan la kuy dem toujours da ngay dégg ñu ne kii nitu jàkk la dégg ba ci euh, maanaam comme nga spécialité spécialité wu ci benn affaire rek donc mbirum jaaru itam bëri na lool macha allah bëri na lool ñu koy ñu koy wax ñu koy ñu koy euh, wane ñu koy def bëri na lool xeeti jaaro yi ci bëri na xeeti jaaro yu bëri na macha allah waaye ñun suñu bopp si la ñu mën a wax ñun yàlla dénk nañu ay euh, secret jaaro yoo xamante ni ay mag ay kilifa ñoom ñoo ko ñoo ko ñoo euh, seen doon la maanaam ci ñoom la bàyyeekoo muy secret yoo xamante ni secret yu wër la. mel na ni ci euh, lu ñuy wax xatimu Souleymane loolu noonu lu wér la parce que yonent yàlla Souleymane ku jàng taarixam xam ne amoon na jaaru te jaaru boobu noonu nekkutoon jaaru euh, neen rek amoon na secret bu nekk ci biir yonent bi sallallahu alayhi wasallam amoon na jaaru ki ñuy wax Xaaruuna euh, yonent la woon moom tamit amoon na jaaru dégg nga na moom wax nañ ne ay magasin rek caabi yi maanaam safa gëlëm la donc kooku kon mm, amoon na àdduna lool macha allah te amoon na secret bu ko yàlla may lu woon ci jaaru jaaru nag bëri na comme ni ma ko waxee am na jaaru yoo xamante ni pour wàll ubbeeku la luy avancer nit ki la loo xamante ni lu dugg mu yombal ay mbiram loo xamante ni dina attirer euh, connaissance maanaam euh, jokkalante nit ñi nit ñi nit ñi jublu la bu baax ci ci wàllu bayra nag bayra ci nit ki ak bayra ci euh, lépp loo xamante ni moom lay defaree parce que toujours dama koy surtout ñi nga xamanteni ay commerçant lañ dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy kii dañuy euh, dañuy def business maanaam jaay ak jënd ak business bi lu mu mën a doon même sax ki nekk ci entreprise am ay nit la soxla yoo xamante ni dañuy ñëw di dem di ñëw di dugal di génne loolu ba tey ci fànn boobu la euh, bu fekkente ne kooku yàlla dimbale na ko mu am euh, jaaru bi yàlla mën na ko dimbale ba mu gën a am succès ci li nga xamante ni moom si la nekk yàlla mën na ko dimbale mu gën a am succès ci li nga xamante ni ci loolu la nekk parce que nit ñi danañ ko jublu euh, damay wax toujours man nga am sa marchandise di ko jaay marchandise bi taaru lool koo gis bëgg ko waaye yow mi ko gis yow mi ko yore yow lay sopp moo tax da nga xañ nit ku bëgg ci marchandise bu mënul sax ngir yow sa jëmm moo tax toujours damay wax nit ñi Bayre Ndiaye laa bëgg Bayre Ndiaye ma ne ko toujours balaa Bayre Ndiaye utal Bayre si sa bopp yow d'abord parce nit ki toujours yaramam dafa war di set yaramam dafa war neex euh ba nga xamanteni ni dañ ko mëna djublu jublu euh, mu mëna dofal ay mbooleem ay marseem waaw parce que nit ki toujours bu bu bu bu setul rek yaramam bu neexul rek lepp loo xamanteni ni na ci rek ngay gis lolu da fay da fay lépp lepp xamante ni duggu na ci ngay gis da fay dëgër donc euh, nit ki euh, toujours dafa yaramam dafa war di set bayra aussi lu am solo la ci doom adama muy mooy li arab di wax xabul muy lu ñuy jublu la dégg nga ñun olof dañuy wax bayra bayra mooy rek lu ñuy jublu la bëgg la dégg waaye yooyu noonu yëpp bu fekkee yàlla dimbali na la ba nga am jaaru bi jaaru bi nag du nekkul sax n'importe quel doomu aadama lañ koy jox nit ki danañu oo balaa ñu koy jox suñu jaaru danañu ko seetal d'abord danañu seetal danañu ko seetal xam étoile xam euh, li nga xamante ni mooy futuram ak present ak li nga xamante ni moo mooy passé li fekkente ni moom amna na capacité yore jaaru bi bu soob yàlla danañ ko defaral te jaaru bi nekkul ne jaaru bi kese la ñuy génnee jox ko nit ki waaye am na leneen duñ koy àndale mooy li ñuy wax ay sangat ak ay sarax parce que lii rek moom moo yor doomu aadama sangu pour sa wàllu ubbeeku la sa wàllu wërsëg sa yaram tijjeeku dégg say porte mën a bu fekkente ne nag sarax la musiba boo xamante ni naroon naa wàcc si yow su boobaa mën na fànq loolu moo tax yàlla wax yonent bi sallallahu ne ko euh, xus min amwalihim sadaqa jëlal ci ñoom jullit ñi sarax sadaqatan parce que gis nga lan la leen ni lan la leen ni jariñ bu jëlee sarax bi mel ne tutahhirhum tutahhirhum maanaam dana leen laabal dégg nga wa tuzakkihim dana leen sellal aussi gis nga mooy sell ak yaram bi may wax léegi yaram bi toujours fekk mi ngi tilim rek ay cat nekk si ay liggéey ay lu nekk ci wàllu gàllankoor borom day sonn rek waaye pour mu dox euh, pour pour mu ay mbiram mars ni mu ko bëggee du mën a nekk moo tax yaram toujours dafa war a set mel ni ondu ci parce que toujours rajo bi boo jàppee boo xawee cos poste bi rek dangay gis ne du la indil benn wax su rek la lay indil du la indil benn benn benn fayda donc euh, nit ki itam aussi moom itam noonu la nit ki aussi noonu la mel nit ki ondu la ondu bi su ko wàccee rek da gis gis ay mbiram dafay daal di gëlëm lu mu lijjanti dafay taxaw lu mu yaakaar dafay tas dégg nga ku mu amul relation ñaari ñett mu dagg parce que yaram moo setu waaye bu fekkee yàlla dimbale na ko daal ba nga xamante ni jokkoo na ak ñun moo xam ci côté bàgg bi la moo xam ci côté wér-gi-yaramam la moo xam ci côté euh, euh, liggéeyam la moo xam ci côté relation la moo xam jabaram la wala jigéen gi jëkkëram la wala sax ngay bëgg juboo ak sa patron rek yu demee noonu bu soob yàlla yooyu buñ ko xoolee am na euh, fu ñuy jaar bu fekkente ne kooku yàlla dimbale na ko mu man ko incha allah dangay gis ne ay ay ay njàqareem euh, jafe-jafeem yëpp dina dina dina ko daaw. jërëjëf euh, Barda ci yooyu leeral gis nañ ne jamono yi jàll yëpp tali yéen ñi nga xam borom am na lu mu leen dénk bu ngeen baax ko jàmm bi ana looy dénk ñi nga xam ne ñooy xam ne ñooy jóg di dem ci dugg ci oto te faral jéey ne que kuy dugg ci oto dina ko mën a boo xamante ni man nañ koo jafe day doomu aadama yi man ko maîtriser ko man koo def mooy li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax sa tey nii te maaw yi sa tey nii toujours danañuy nettali li nga xamante ni moo taxoon a wàcc. Euh, mooy sa tey ni mooy fallaqi ak naas boo seetloo euh, fukki aaya la ak benn ñaari saa yi boo ko boolee bi juróomi aaya bii bi juróom benn aaya la bi sallallahu alayhi bis dañ ko liggéey jàpp ko yonent bi laa wax bis dañ ko liggéey jàpp ko toujours nag damay wax ne bu fekkee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam liggéey jàpp ko asuma la ñun sagari doomu aadama yi kon xaw ma fan lañ jëm buñ buñ jugul suñu bopp buñ taxawul suñu bopp dégg nga taax bi gudd na waaye dama ci tënk rek am na benn euh, benn yahud ci yahud yi euh, liggéey na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ko liggéey ci karawu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fas ko ak ay ay ay ay ay ay fë ay ay ay ay ay pusa fas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mënatul dara maanaam day fàtte lu mu añee démb sax boo ko laajee tey mu fàtte ko dégg ngir liggéey boobu noonu ñu ko def yar moom fasu ba nga xamante ni daal euh, yar moom naayeetul si la aaye boobu si la ñaa euh, mooy sa nii boobu noonu wàcce bi Jibril ñëwee ñu ne kii lu ko daal ñu ne kii dañ ko faj dañ ko euh, dañ ko liggéey ñu ne ana liggéey mu ne mu ngi ci barab sàngam ñu dem andi liggéey bi gis mu nekk fukki fas-fas maanaam mooy fas-fas gars yi def suñu mbokk pël mu nekk fukki fas-fas ak benn alxuraan daal di wàccee bisimilah rahmaani rahiim qul a'uuzu bi rabbil benn pas-pas ne tapit tekkee nga gis yaram bi muy commencé naay ñu continuer saar bi ba saar ba jeex ba beneen saar bi bu fukki pas yi ak euh, euh, euh, fukki aay yi ak benn yi jeex fukki pas yi yëpp ak benn yi daal di feccee ko gis yaram bi sallallahu alayhi wa sallam daal di commencé naayiwaat dégg nga mooy sa tey ni boobu noonu. képp koo xamante ne yaa ngi xëy di génn sa kër boo ko jàngee yàlla mën na la musal ci accident mën na la musal ci leneen lu dul accident dégg euh, bismillahi alladi laa yaduru maa ismi sayun fil ardi wala bis samaayi huwa samiu alim loolu nit képp koo xamante ni mën na ko mu xëy wax ko balaa muy génn këram wala ngay dugg ci oto wax ko yàlla dina la dimbale da nga ñibbisiwaat sa kër bu fekkente ne yaa ngi dugg ci biir oto yi nee na bisimillahi mujjireeha wa muuseha inna rabbi la xafur wadud boo ko waxee yàlla mën na la dimbale nga wàccaat ci jàmm dégg kon yooyu noonu ay kii la euh, te sunu loolu yëpp daf doomu daal dafa war a fagaru doomu aadama dafa war a fagaru dafa war a préparer boppam yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne xaasibu anfusakum qabla an tuxaasibu isaab leen seen bopp ñëpp ngi leen isaab mooy mooy comme li ma wax léegi rek al wiqaayatu xayru min al ilaaj dégg nga xisaab leen seen bopp njëkk ñu leen di xisaab mooy préparer leen seen bopp balaa ñu leen di pare benn mag bu baax day wax ne euh, ku sanguwut takkoo danañ la sang takk la ba nga ne ŋokk ñu dugal la ci am pax bu sew suul la kon nit ñi il faut ñuy prépa seen bopp parce ci aaxiru zaman lañ nekk nit ñi seen i xol yàqu na RSC RSC def lenn lu ñaaw RSC def lenn lu ñaaw léeg-léeg da ngay am nit mu ne liggéeyal ma sama wujj bi mu def léeg-léeg nga am nit mu ne liggéeyal ma sama frère man loo xamoon ci frère dañuy bokk lépp seen xol yi doon benn waaye ci jamono bii tey ci aaxiru zaman lañ nekk loolu. ñoom ñoom def bu te sa ñën benn sax ala ku yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam buñ buñ def delloo ci taarix ay mbokkam ñoo ko fexeel génne waxam laa nag si jamono bi nga xam ne axiru zaman la nga xamante ni xol yi yàqu nañ bët yi gumb nañ yi tëx nañ ah kenn kenn satul defal bon accident yi nga dégg nii yëpp def lu rek taw rek gis nañ fi dee te ñu ne la feebaru tëdd def dara yu ci yu ci bëri deful wala rek kon nit ñi nit ñi fagaru comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee al wiqaayatu xayrun minal ilaaj fagaru moo gën faju lépp loo xamante ni yaa ngi koy euh, mi mi mi yor di ñëw ci yow nga gis ko te fegoo ko heure bu àgsee ci yow rek danga am beneen beneen beneen coono boo xamante ni fa nga waroon a dafay daal di weesu. jërëjëf Baye Ablaye ci leeral yi ku bëgg a jokkoo Baye Ablaye fi ñaar. waaw euh, ku bëgg a jokkoo Baye Ablaye ñaari numéro la ba sa njëkk mooy 77 364 80 91 77 364 80 91 pour ñu nekk euh, à l'extérieur dañ ci yokk rek Handicapés Sénégal mooy 00221 euh, bu ko defee Tigo bi itam boo defee bi.

lu mel ni filmé indo yi da ngay gis euh, wala sax suñu bopp sori na si filmé indo yi sori na euh, suñu bokki euh, chrétiens yi rek bu ñuy génn bu ñuy génn da ngay gis ne danañ def seen seen kii yooyu noonu ñuy def dégg maanaam nit luy sa kii da ko war a gëm sa religion da ko war a gëm da nga war a gëm itam sa cosaan religion bi ñu ko waxee mooy mooy mooy fi nga fi nga xamante ni foofu nga aju wala muy diine l'islam rek di bopp bi waaye cosaan fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi kon nit ñi nañ fonk seen cosaan képp koo xamante ni fonkoo sa cosaan da fonk cosaanu keneen te li olof day di wax boo bàyyee sa ànd dem boo demee fekk kooku fees àndam ba mu fees